man Ibrahima Sow laa tudd waaye maa ngi wax ci kàddu collectif bi nga xam ne ñoo daje fii ci dëkk EDEC eh, eh, eh, Grand Standing dëkke ci wetu tëli bu mag bi dafa am lu ñuy jooytu loo xam ni bëgg nañu jooytu bi yem tey moo di suñu quartier bi koñ boo fa dugg tey ab garage la te garage baa ngi fii ci suñu wet ñu jàpp ne garage bi oto yi yëpp ak client yi dem Dakar ca garage ba la ñu war waaye koñ boo fi dem tey ab garage lañ fa ubbi te loolu li mu ñu indil ci ñun mooy suñu koñ suñu buntu kër yi mu ngi gën di salte ndaxte fu waay taxañe sa sa kii sa sa sa këyitu kile caaf wala yooyu sànni fa boo naanee sa kaasu café sànni ah, boo mu naanee sa mbuusu ndox sànni et cetera et mais loolu sax xëy na du li gën a métti li gën a métti mooy cinq heures du matin nañ ñu yee mag ñi war a dem jàkk ji ñi war a toog seen kër di wirde xale yu tuuti yi nga xam ne defuñu kenn dara di nelaw ñuy yéexu ci seeni nopp mag ñi xamatuñ li ñuy wirde xale yi nelawatuñu dañuy tiit am na ci jigéen ñu feebar ñoo xam ne fi mu ne ñi ngi ci booru de ñi ngi bëgg a déprimé déprimé dañu bëgg a dépression dañuy bëgg a dof ndax bruit bi ñu dëkkal ci seen nopp loolu nag ñu ni dafa doy parce que bi ñu ko waxee ak ñi ñu ko war a waxeel mooy benn mooy ñi nga xam ne ñooy def loolu mooy chauffeur yiy jële fii ay client ak coxeur yi jéem nañoo waxtaan ak ñoom waaye la wax rus naa ko nettali nañ koy waxee itam rus naa ko nettali ñu jóge ca dem ci autorités yi dem nañ ci préfet dem nañ ci commissaire dem nañ ci bërk démb lañ jóge ci gouverneur bind nañu procureur de la république parce que lii raam ci ñag bi la jëm te suñu nag du ñu bàyyi ñu kii ko ñu jéggi ko donc li ñu décidé tey bu fekkee ne gis nañu autorités yi nga xam ne ñoom la fi état bi teg ne ñoo ñu war a aar bu fekkee ni nañu ñu tontoo may indi fi ay alkaati yoo xam ne ñun jàpp nañ ne daanaka ñoom dañuy dimbale ñi nga xam ne ñoom lañu doon jàkkaar lool dama wax ni kon li ci des mooy ñu ñàkk pexe ñàkk pexe rek pexe la ñu wutal suñu bopp ay pexe sa naako sa naatangoo bi laaj na ma lan la ñu nar ma ne ko loolu xëy na teel naa wax waaye ñun ay mag yi jëmm la ndaxte suñuy xale ñi ngi fi am nañu lu ñu bëgg a def ba tàyyi ñu tereel ko ndaxte xam nañu. kaaraange am na ku ko yor waaye nag ku bëgg a dee wéqu li ñu décide nag li ñu décide nag mooy li ñu fas yéene mooy buñ jógee fii tey dootuñu doon victime kenn waaw daañu taxaw taxawaay bu dëgër boo xam ne gii a ah, lu ci am nag ñu xam ne mënul ñàkk rek lu mënul ñàkk nag bu ñu jotee itam ñu xam ni mënul ñàkk rek ñu ñu sant yàlla. moo ak ay convocation commissariat ak que euh, yéen waaw wax naa loolu de bind nañ procureur d'ailleurs dinañ ko ñaan a gis sax dañu ñaan a tase ak moom wax ak moom parce que li ñu yaakaar ni foofu la jëm dañu yaakaar ne dana mujj ci yoon ñaanuñu ko yàlla ñaanuñu ko yàlla benn yoon waaye nag. ñàkk ñaan mbir du tax mu ñëw ci yow te ñun gis nañu ni loolu mu ngi jëm si ci ñun danañ ci taxaw dund nañ ci ay violence physique violence yi ñuy dund sax yi ñu jëkk a dund sax du violence du du violence physique parce que magum jëm toog sa bunt kër nit di la fa gàllankoor nga wax ko mun la fii mbedd buur la téyel sa doom rouler à quatre-vingts à ci biir mbedd bi nga wax ko mu ne ma téyel sa doom loolu rek agression la mais barki démb dañ ñëw taxaw fii ñuy julli fii ci jàkka ñuy saw ñu génn gis benn oto gaari foofu ñu ne wax kenn du fi yëpp kenn du fi yëpp mais benn xale moo jóg kenn ci ñun mu ne ko yow da ngaa fees ak kii kii ay sikk yow da ngaa sikk loolu waay góor gi bu êtes plein d'inconvénients koo xam ne kii mat na la maam ah loolu bu amee nag <laughs> xam nga nit dootul ànd ak sagom bu ko defee beneen bi beneen agression physique bi benn kii jóge na ci terrain bi di traverser terrain bi fekk xale yi di di di di di di entraîner mu war a jaar ci seen ko seen président ci boppam jóg di ko artu mu boo ci paaka ne ko boo ma jegee ma nangam taan sa ndey heureusement parce que loolu boo ko waxee góor ci néew dina engagé lu mu am jël mais benn xale bu féete woon ci ginnaaw defe naa entraîneur bi la moo dóor waa ji paaka bi wadd pour mu dire que dafa am fu ñu àgg moo tax ñu wax li ñu def li ñu wax di nara a jëfe ni ñu jëfe Je suis Ibrahima Sow et je représente le collectif des riverains de la Nationale 2 habitant le quartier Grand Standing. Pourquoi ce point de presse aujourd'hui? c'est ce que je disais tout à l'heure nous vous avons convié à ce point de presse justement pour alerter l'ensemble de la commune de Thiès et l'ensemble pratiquement du Sénégal. Parce que nous vivons un calvaire depuis pratiquement plus d'une année. Nous vivons un calvaire parce que notre euh, quartier a vu l'implantation à toutes ces intersections de gares routières irrégulières. avec tout ce que cela comporte de nuisances. Nous sommes systématiquement envahis. Euh, nous sommes envahis dès 5 heures du matin. Nous sommes gênés en tant que fidèles dans nos dévotions. Nos bébés sont brutalement tirés de leur sommeil innocent. Des malades parmi nous sont au bord de la dépression. À cause de quoi À de cris, à cause de coups de à cause de coups d'accélérateur, n'est-ce pas À cause de, de, de sifflets, etc., etc. Alors, dans ces conditions, nous avons estimé devoir rappeler à l'ordre les auteurs de ces faits. Ces auteurs ne sont autres que des transporteurs et des, ce qu'on appelle communément les coxeurs, les rabatteurs. Ils nous envahissent donc toute la journée et pratiquement une partie de la nuit. Nous avons estimé les, ra, les, ra, euh, les rappeler à l'ordre en leur disant que nous acceptons qu'ils ont le droit de chercher à vivre. Mais leur droit à chercher les moyens de vivre n'est pas du tout un droit à nous empêcher, nous, de vivre chez nous la, la, la, notre vie. Mais leur réaction a été tellement insolente, tellement désagréable, tellement désobligeante que nous avons dû en saisir les autorités. Une à une. D'abord, monsieur le préfet du département. Ensuite, les maires. le procureur de la République, par écrit, nous sommes d'ailleurs en train de penser à euh, lui demander une audience pour parler avec lui. Parce que, étant donné tous les déboires que nous avons évoqués, nous sommes au bout de nos peines. C'est pourquoi nous les avons saisis, ces autorités. Mais les résultats que nous avons eus de cette saisine, euh, ne nous enchante pas, au contraire. Parce que dès que nous, dès que nous avons saisi le, monsieur le préfet, effectivement, il y a eu un déploiement des forces de l'ordre. C'est vrai. Mais ces forces de l'ordre ont, ont, ont pu tisser des relations telles que nous avons vu à travers leurs échanges une telle amitié, une telle complicité qui nous font croire qu'au fond, ces forces d'ordre ne sont là que pour euh, protéger nos protagonistes, ce qui nous semble euh, inadmissible. Alors, devant cette situation, sachant que nous sommes dans un état de droit, nous savons parfaitement et nous sommes d'accord avec l'idée que la, notre sécurité et sous la de la responsabilité des, des, des autorités compétentes en matière de sécurité. Vous n'avez pas eu à Mais si, nous avons vu. D'abord, un père de famille à qui on lance que fille mère de bourle, c'est déjà une agression. Mais en plus d'empoignade, en plus d'injures, en plus de colibé, n'est-ce pas On en est arrivé aux mains une fois, ou même deux. Et ça, Nous savons que nous sommes dans un état de droit, mais ces choses-là, ces petites empoignades qu'on qu a l'air de négliger, peuvent évoluer en rix. Et ça, nous ne voudrions pas qu'il en soit ainsi. Mais encore une fois, comme je le disais, nous savons que notre sécurité, nous n'avons pas à l'assurer, la, parce qu'il y a des services compétents pour ça. mais ku bëgg a dee wéqu et ce que nous avons décidé c'est qu'en l'absence de, de, de réponse adéquate de la part des autorités que nous avons séduit nous allons nous essayer de faire ce que nous pouvons faire pour en tout cas garder notre sécurité parce qu'il n'est pas question que nous admettions que des gens viennent d'ailleurs qui nous imposent une loi de façon irrégulière et qu'on en souffre. Qu'est-ce que vous envisagez de faire Nous envisageons de faire ce que nous envisageons de faire. Peut-être qu'il est, est prématuré de le faire, mais sachez que nous serons mobilisés et nous, ferons en sorte de n'être plus des victimes de cette situation. S'il y a des victimes, après ce, point de presse, il faudra les chercher ailleurs, pas parmi nous. Voilà très rapidement ce que euh, le collectif m'avait chargé de vous transmettre comme message, étant entendu que nous avons fait un texte qui vous sera remis à toute fin utile.